par deux poids deux mesures li ñu def ku ko def. ok mais euh, futile non non non non garde corps de Macky Sall non non non ku mu mën a doon Maguette Sène Maguette Sène li mu def li mu def ki ko def yoon da ko war a teg loxo euh, teg loxo d'accord Maguette Sène li mu def ki ko def yoon da la war a teg loxo garde corps président Macky Sall garde corps Maguette Sène garde corps Maguette Sène li mu def ok Guy Marius Sagna yoon da ko war a teg loxo d'accord ok alors moom il faut que ñu nangu ko si tu te trouves dans le camp est-ce que tamit buñ ko convoqué mu ñëw ak ses gardes du corps. Ouais. est-ce que c'était le lieu. te ñu ji que parce que mën na jàpp kidnapping. c'était amul convocation amul dara. ñëw këyit ay nit yóbbu leen mbuur aussi foofu est-ce que du y a y a pas problème. question laa lay poser rek. maas maas maas xam nga ñu ñëpp yàlla dogal na. Mm-hmm. jàng nañu. du dëgg. Mm-hmm. am nañu xel dañuy xalaat comme ni ko enquêteurs yi di defee xam nga l'enquêteur la fi ñu rawee rek mooy moom loolu kese la jàng. ok donc bu bëggee jot si nit xam na na muy jaar pour jot si gis nga jël na ay cinq éléments Ousmane Sonko garde corps am yóbbu na leen du dëgg l'enquête suit son cours di nga gis ne euh, après loolu leneen dina génn donc nañu bàyyi justice mu def liggéeyam. mais honorable xam nga dama la poser question par rapport ak loolu convoqué nit ki mu ñëw wuyu ji yoon. mais ñi tax mu am sécurité ñu cueillir leen sans convocation yóbbu leen. jël ay ñu gis ay nervi aussi ci ñu taxaw ci corniche bi. parce que parce que. y a problème ay nervi yu taxaw ci ko mais ñëpp gis nañ ko. fan noonu. Ousmane Sonko jour muy wuy ji fan la nervi yi mais bi muy wuy si. fan la nervi yi mois de mars bi Ousmane Sonko di wuy ji fan la nervi yi mois de mars bii laay wax même mois de mars bi sax. fan la nervi yi taxawoon. gisuma ko non bii rek amaan na bii rek amaan na non si si ah. non si on a vu des nervis oui bien sûr ah, bien sûr léegi nervi yi pourquoi faire. Ah. mais en tout cas Ousmane Sonko lañ gis mu ànd ak garde corps yu dul jeex une centaine. ok on dirait même des milices. léegi kon léegi kon léegi kon garde corps tribunal cinq garde corps la dugg loolu bu ko responsable loolu bu ko responsable Benno Bokk Yaakaar defoon. ñu ne voilà c'est pas normal il se déplace avec des milices milices yi nangam dugg na fi génn fi Ousmane Sonko def ko ñu bu ko cautionné. yow léegi ça c'est pas possible. léegi yow. et puis bu fekkee ne ñoo ñoom am na lu ñu def mais ñi ñi am occasion téye pour xam ñeneen ñi ci topp danañ leen téye xam ñeneen ñi ci topp je pense que ça c'est normal léegi dama doon dama doon ñëw léegi ci ci ci problème mu certificat médical bi ba ñu ne dañ bëgg a def prélèvement pour effectivement euh, test ADN. ñu euh, def prélèvement pour test ADN mais expertise la c'est de l'expertise cest dire que médecin Alfousseynou mi ngi fi du dëgg ñoom bu ñu defee ñoom mun nañ def contre expertise est-ce que lañ lañ lañ la ñu fekk foofu Ousmane ko moom wala moomu ko bu fekkee ne ñoom dañuy ragal ne rek bu ñu defee dañ koy méngaleeg bu Ousmane ne ah voilà c'est l'ADN de Ousmane moom la mais am na contre expertise te ñoom dañu nekk ci procédure boo xamante ne nii bu ko defee boobaa ñoom mun nañu génn ut seen commettre seen benn seen benn médecin mu def contre expertise ñu ne ko non. voilà yow la wala yow mais est-ce que est-ce que nga baal ma relance ko est-ce bi du am blocage ci fi ñu jëm parce que bu fekkee ne ñee testu ADN lañu laaj gis ne moom test ADN wax na ko tiflitam sax duñ ko am léegi est-ce que bi da am blocage jëm ci musiba. mais mais man goo ma ne góob ma ne test ADN bi. mun na bloquer processus bi je ne crois moom parce que quand le juge est assez intelligent xamoo ba mu ko koy laaj nax réellement soxla na ko wala soxla ko moom day def enquête du dëgg laaj na ko mu ne ko bu bam bu bob maarle sax doo ko am donte sax laaju ko deret moom te <laughs> kii la ko laaj. bu ma booy ñu xàddi bu ma. waaw moom moom quand li ma leer te leer ma ah mm-hmm. man daf maa leer naññ parce que quand nag ñun c'est vrai nekku ñoon foofu mais nag dañu am xel di xalaat. te avocat bi ba mu génnee waxul waxu deret de. ok wax dëgg neex yàlla. d'accord merci waxul waxu deret. merci donc euh, voilà merci merci honorable ma ñëw ci euh, euh, Ousmane Touré. Mhm. est-ce que on va on va pas vers l'impasse dans ce dossier-là. Mhm. parce que ci li Ousmane Sonko wax mi ñu ngi koy laaj ADN. Mhm. moom saa waay nee na direct Bob Marley sax gars yi mun mun booy boo ñu jël direct Bob Marley. nee na tifli duñ ko am ci moom. mais est-ce que tey jii duñu jëm ci ay ay ay yëngu-yëngu ci dossier ñu dégg Samba Dang mi ngi wax di politisation du dossier. jëm ci ñu xañ ko mu mën a bokk ci élection 2024. est-ce que du ñu jëm ci impasse ci dossier bi. waaw xam nga dossier bi moom impasse bi tàmbaliwul léegi yàgg na parce que ñu war a chargé biñ convoqué waa ji mu ñëw teguñ benn élément ci table d'enquête bi na ko yowkat biñ ñëwee ci bërëb bi dañ fa fekk sa emprent dañ fekk xale bu jigéen bi yëreemee xotteeku xale bu jigéen biñ ko consulté dañ fekk ay déchirure ci moom certificat médical bi nee na amoon na rapport léegi xale bi jigéen bi bi mu la griffé wee mi ñi ngi fa fekk sa adeet yu yëpp amuñ ko yaa ma siif rek la ñam yaa ma siif xale bi nee na yaa ko siif. tool yëpp yaa ma siif. waaw lenn rek a tax ñu mun ko déglu ci dossier bi mooy dem na Sweet Beauty. Mhm. élément boobu rek lañu am sax ngir ñeme ko. yaa dem Sweet Beauty. Mhm. xoolal du am du déchirure du ADN du benn preuve buy attesté viol. Mm-hmm. waa ji taxaw mais yor moom day centaines de preuves buy attesté ne lii complot la mm-hmm. xam nag li ngeen bëgg muy mission impossible mais, mais quand même est ce que ñoom nee nañu yor nañu ay preuve yor nañu vidéo yor nañu maniwu mais bu ñu yoree preuve génne ah, bu ñu am ci niñ bi voilà parce que non maas monte jël nañ fi benn vidéo jël Ousmane Sonko ak benn xale bu jigéen photo yooyu kat maas xam nga luy dëgg. mais Adji Sarr moo wax ci élément bii. ne bu yoon dugg dana fajal boppam mais mais attendons le verdict. dëgg. Hmm. régime bi lépp lu mu mës a am ci opposant bu muy xeex génne na ko teg ko sur la table. Hmm. Hmm. bu ñu yoroon tara fatal ay na ci waaji ci li ma gëm jusqu'à preuve du contraire génne nañ ko bu ñu amoon photo ñu def procès procès moral la dañ koy génne ci net bi. bu ñu amoon vidéo dañ koy génne ci net bi lay dëgg muy téewuñ dara waaye yow dara te yaa ngi accusé waaji moom jiin na la complot te teelu bëri te xam fi nga bëgg dem ak moom mooy empêcher mooy empêcher sa candidature. Mhm. mu wax la ne la jaral na ko lu ne lu ngeen ci lu mu leen jaral ak jaral na ko lu ko raw. parce que xam na ni taxawutoo leen ci élément yu solide. Mhm. du nangu ci caaxaan yi ñu xëy aaye mu nekk candidat. yéen ñëpp xam nañ li leen tax jóg mooy aaye ko mu nekk candidat je pense que ci impasse boobu ñu nekk lenn rek moo ko mën a régler mooy médiation wu autorité religieuse yi. Mhm. te très te seen silence def bruit bu ëpp. Hmm. parce que biñ toolee ci impasse ci. gis nga nañ kilifa di ne. war war non romb non romb nañu artu ci bu yàgg waroon nañu artu bu yàgg. Hmm. parce que yow lii mënul am. ñu nekkoon ci benn impasse dëkk bi doon waaj effondré wu en tant que état. Mhm. ngeen wax ba calme revenir. ok waroon ngeen di suivre dossier bi di ko may ba di xool fu mu toll. Mhm. dossier bi dem na ba toll fii ci miir lañ toll parce que ñaari camps yi kenn du ca nangul moromu. Mhm. jamais l' état va reconnaître que Sonko a été victime complot jamais. parce que loolu mooy def nga ko président avant l'heure jamais Sonko ne va accepter de perdre ses droits ci dossier bi jamais xalaatu ko. parce que tellement dafa tuuti. amuñ benn xalaatu. mais bu ñu jéemee loolu nag. non jaral na ko bakkenam wax na ko. Sonko dossier bi jéem ko ci xañ droit mooy da nga bëgg taal dëkk bi du ci maye benn largesse xam nga yow nit sax. <laughs> mun nga ne non naa seede parce que ñii kat. no non du ma moom kii la extraterrestre non du ma waa Sonko. j'analyse seulement les faits ok ok non non j'analyse seulement les faits. yow moom yow moom. wax naa la ko fi suñ benn débat. <laughs> nangul naa la nangul naa la Pastef nga. bu ma wax ay chroniqueur kooku moom vraiment. xam naa ne honorable moom xàmmeewu ma ci instance su Pastef. xaw ma la sax ñu ngi door a daje. ok yow yow moom militant Pastef nga bu ma wax ay waxu. chroniqueur mais mais ah, bu fekkee ne dossier dañ ci bëgg dañ ci bëgg éliminer wala ñu sànq. mais mais Mass mais Mass kii Ousmane Sonko. mais mais c'est un Sénégalais comme tout le monde la première force politique de ce pays ah. la première force politique. de ce pays. comment la koy nattee. le chef de l'opposition mars 2021 wane na ko de. non kii kii kii kii waxul lool de waxul le chef de l'opposition. première force politique de ce pays. Ah, loolu moom ça ça la xam nga loolu boo koy wax sénégalais.